durée de vie am jeex na mais puisque tout le monde a décrété euh, la fin de cette coalition vous vous accrochez parce que non, euh, je... euh, <laughs> vendredi samedi à l'Assemblée nationale euh, c'est Pastef et Taxawu Dakar qui se crêpaient le, le, le chignon Yewwi a toujours déclaré urbi orbi que li mu bëgg mooy Khalifa Sall mën participer waat à l'élection on ne comprend pas que la procédure soit enclenchée, qu'elle soit matérialisée à l'Assemblée nationale samedi et que PASTEF s'y oppose PASTEF sax retardel na euh, procédure bi On ne comprend pas que pour une coalition que vous dites euh, bien portante, euh, que l'un des membres fondateurs et membre essentiel, muy Taxawu Dakar, soit marginalisé, ne soit plus convoqué aux, aux, aux conférences de, de, de presse. On ne comprend pas que le Yewwi qui faisait rêver et qui a fait adhérer les Sénégalais aux locales et aux législatives, on n'a plus ce Yewwi-là. Léegi yéen seen wax yëpp, c'est injustice. Euh, libération des détenus politiques libération de Ousmane Sonko amatu leen sax feuille de route wala ah wala wala agenda mais mun xam nga li ma neex yow ci sa ci sa façon poser <laughs> question yi mooy da ngay def ay affirmation dugal ni ki ci ruq bon et puis voilà mais c'est très bien on, on comprend le jeu Euh, non ça se passe pas comme ça je, confirme effectivement qu'il y a un problème il y a un problème entre Yewwi et un euh, de ses membres fondateurs mu nekk Khalifa ça nañ ko jël seppi ko parce un problème mais en dehors de ça je dis Yewwi Askan mais mais benn tànk bi bu dee bu génnee chaise bi day kii. non du tout. Euh, euh c'est ce sont les deux pieds même. non du tout xam nga euh, je veux rester élégant euh, Yewwi Askan Wi c'était un espoir. Et, et, et quand même euh, Khalifa bien sûr est un élément important de Yewwi Askan Wi Euh, mais euh, il y, y, y, a quand même de très grands responsables au sein de Yewwi. Responsables par le nombre, responsables par la qualité de ce qu'ils représentent, mais il y a aussi euh, des, des, des, responsables qui inspirent et, et, qui ont beaucoup apporté à la démocratie sénégalaise. Euh, Koumelni euh, Ousmane Sonko, je pense qu'il a été une locomotive donc de cette de ce de cette coalition Yewwi Askan Wi euh, y d'autres je ne veux pas énumérer mais bàyyi rek ma yem ci moom pour ne ni euh, au sein de Yewwi en fait il y encore des gens de valeur de qualité yoo xam ni am nañu cette communion donc avec le Sénégal et encore une fois c'est pas le nombre qui est important et euh, parfois moi-même parfois c'était cette attitude-là que j'adoptais mooy jéem a rassembler di négocier bon c'est un peu ma philosophie ma façon de voir les dans la vie euh, il faut trancher loo xam ne mënul dem bul avancer torop donc dans le cas de euh, Khalifa ak situation bi ñu amoon en tout cas par rapport à ce point précis du dialogue je pense que décision bi moo gënoon pour que au moins Yewwi Askan Wi continuer décision bonne mooy bi ñu def nii. mooy la coalition Yewwi Askan Wi continuer sans lui en ce moment. donc génn ngeen Khalifa ci coalition c'est une suspension. Euh, da ngeen ko suspendre. Euh, c'est une suspension de la de la coalition il y a jamais eu une décision d'exclusion. Ah. Euh, formelle et je suis encore une fois. en train de préciser quelque chose de très clair da may may rek ma ma leeral bu baax a baax. Ah, donc donc waaw ma leeral bu baax a baax donc Khalifa dafa nekkoon membre coalition Yewwi Askan Wi sur un point précis mooy la question du dialogue ñu am problème déggoowuñu ci mu indi situation boo xam ne tey jii mooy y un froid total et puis même disons Khalifa bokkatul te kenn tamit oowatu ko ci ndajewu Yewwi Askan Wi ça c'est clair et c'est constant et je dis honnêtement moo gën moo gën pour Yewwi Askan Wi en ce moment parce que ça permet de libérer Yewwi Askan Wi mu nekk ci axe boo xam ni moo doon axe am ay principe am am logique xalifa aussi il est libre am logique di ko dérouler donc ça permet aujourd'hui d'avoir vraiment beaucoup plus d'énergie à libérer mais encore une fois kenn génn ci wala ñenn génn ci taxul en fait la puissance ak li yeewu askan wi donc di di di incarner euh, dara wàññeeku ci et ma jeexalee fenn